l'autre problème bi may remarqué moom mooy la disponibilité ci stadium Marius Ndiaye ak Dakar Arena c'est contradictoire tey par rapport ak li nga xam ne am nañu ko tey ci wàllu basketball on n'arrive pas tey à exploiter suffisamment tey li nga xamante ne poy moom mooy dakaar Arena lan moo waral lu ni mel. waaw disons seetaan naa élément bi. Mm-hmm. am na lu si nga xam ne nii effectivement parce que nit bu ñu la waxee lu nga xam ne nii dëgg la da ngay d'accord ne dëgg la mais moom wax na cause bi effectivement y a des problèmes de planification mu ne stade bu benn nii Marius Ndiaye du tout le temps bu ko fédération basket soxlaa lu koy am parce que aussi yeneen discipline yi koy utiliser léegi aussi dans le monde moderne c'est très rare de voir une salle dédié exclusivement à une seule discipline la tendance c'est des salles ñu mhm. ñeneen ñëpp di ko mën a utiliser basket volleyball voilà c'est mhm. ça aussi mhm. moo tax man du ma toog mu di kii di kaas ne par exemple tey judo soxla nañ terrain bi pour une année ñu soxla ko benn yoon mbaa ñaari yoon ñu permettre leen ñu def seen activité donc il faut ko mu am une solidarité entre les disciplines ak entre les fédérations ren spécialement on était en année électorale ça aussi ça a joué de deux pendant l'Afrobasket on a suspendu aujourd'hui aussi mu amaat beneen élément bu nga xam ne nii élément nouveau la amuloon bu njëkk mooy les compétitions de la balle xam ne ni su amee à Dakar pendant quinze jours on suspend nos activités suñ équipe aussi bu waree dem yi day am ay match retard bu ñëwee il nga jël temps mu joué ko donc tout ça qu'il faut voir maintenant faut ñu xool format d'abord formule du championnat man je suis convaincu que am na ay match yu ñuy jouer premier tour du progresseroo suñu joueurs yi c'est des matchs dont les résultats sont connus à l'avance et des scores fleuves quarante points nangam ak est-ce que on va continuer à jouer à utiliser sa même format bu nga xam ne ni boo ko xoolee du tax joueurs yi progresser est-ce que dañu war a mën a xool def benn format formule de championnat boo xam ne nii xoolal par exemple dig ville de Dakar en fii je pense que est-ce qu'ils se sont rencontrés benn yoon en mhm. finale mhm. pendant toute la saison alors que ça ce sont les matchs phares nga xam ne nii dañoo waroon di jouer di jouer mu permettre joueurs yi ñu progresser public bi ñëw donc loolu il faut que ñu réfléchir sur ça sur ça il faut aussi ñu réfléchir parce que tamit club yi ñoom ñoo lay wax mais un deux ñoom ñoo lay bind di demander rapport pour un bu équipe nationale demee le règlement il est clair équipe bu am plus de deux joueurs am na droit demander report de son match gis nga pendant longtemps l' équipe nationale était en Chine garçon dem foofu di jouer tournoi bu ñu éliminé bu ñuy invité woon pour après dem le tournoi après Tokyo au Nigéria donc tout ça mooy fexe effectivement euh, doo mën a def disponibilité salle beeg yeneen éléments yi doo mën a def une planification mu wóor na da nga ko mën a assurer à cent pour cent on avait rencontré les clubs man maa rencontré tous les clubs de première division ñu convenir de jouer la finale pour la clôture de la saison de treize août moom lañ convenir woon mais à un moment donné ren bu mu demee dañoo obligé woon arrêter championnat bi pendant la phase de l'afro basket parce que aussi boobu mënuñu woon continuer di jouer je voulais que tout le monde soit mobilisé c'est ça mi ngi siy réfléchir j'avoue que j'ai même eu des propositions yu ma jógee même de l'extérieur de proposition de calendrier bu nga xam ne. yu ci mel na